nga xam ne ay acteurs industriels lañu du monde francophone ndax business bi jamono ji loole la laaj daan wax ne loole nag dina tax ñu mën a défendre li nga xam ne mooy li ñu bokk maanaam suñuy valeur commune ndax nag lu jëm ci wàllum identité ak respect ak tolloole daal cay mën a am ndax bëri ay gox ci àdduna bi boo fay demee sax boo fay làkk nasaraan dañ lay xoolaat daan wax ne nag business bi jamono ji li mu laaj mooy mboolem fépp ci àdduna ñaareelu édition forum international des entreprises Jean Loup Blagier mi nga xam ne mooy njiitul groupement patronat francophone daat nay waxe vocation bi nga xam ne groupement du patronat francophone daan na koy am mooy nekk ci wetu entreprise yi ngir nag mën leen a yombal lépp loo xam ne jëm na ci wàllum échange économique Abdou Karim mi nga xam ne bokkoon na ci ndaje moome nag daat nay wax solo si nga xam ne ndaje mi am na ko Sénégal gi nga xam ne réew ay leader économique francophone yu mu dajale ndax lu toll si ñeenti téeméer ci ay participants bokk ci waxtaan wi yéen a kaay gi di Dakar Times bàyyi mbir moomee wax ci rapport Cour des comptes bi nga xam ne daat nay feeñal ne ICS ameel na trésor public lu toll ci cent vingt milliards loolee bëri na a réew mi ko di jeex xëy dañu xibaar naan ñu député bi di Boubacar Biaye ak Mamadou Sall ñaar ñii nga xamante ni dañu leen doon tuumaal lu jëm ci wàllum luq a kaay gi di xëy di ñu xibaara nañu liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci poste ñoom nag ñoo ngi ci mbedd mi ndax jafe-jafe yi xam ne moom la ñuy dund journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy ambulancier yi maanaam gerew bi nga xam ne gerew ko démb ba léegi maanaam metti na lool ci ñi nga xam ne ñooy askan wi maanaam réussir nañ ko yéen a kaay gi di Les Échos ak Le Témoin xëy bind ci seen xën mu njëkk ne mercredi de tous les dangers ndax Barthélémy Dias tey ji lay wuy ji yoon te nag daat nay woote li xam ne mooy ab mobilisation moom ak Ousmane Sonko a kaay gi nee na ñi nga xamante ni ñooy ñooñu ak taskatu ñoom tim woo nañu nag seeni ñooña ngir ñu daal di faire face ak ñi nga xamante ni ñooy ñoom Barthélémy Dias yéen a gi di libération nee daal ñun ni nga moom lañ ko gisa daal ak jàppante nag munta ñàkk ak jàppante daal munta ñàkk Yankhoba Diattara daat nay xëy wax ne ñaareelu vague loole nag du am ci Sénégal Mor Ngom moom tim la mu ci biir journal bii de L'As nee na Barthélémy ak Ousmane Sonko ay nitu fitna lañu na nañ nee na ñu sojjet fas yoo nag ki nga xam ne mooy seen futur maire di Barthélémy Dias yéene kaay gi de l'info nee na Dakar jamono ji nag nooyeetul Dakar dafa aj nooyi kii yéene kaay gi de la Tribune naa ne attention attention ñoo ngi foowee li nga xam ne maanaam mooy safara ñoo ngi foowee safara ci Sénégal ndax nag taal bi jamono ji taal bi yànji na loola yéene kaay gi di source xëy di ñu xibaar naan ñu Barthélémy Dias ne dina révocable maanaam dinañu a jëlee comme ni ñu defoon Khalifa Sall quotidien xëy dañu xibaar naan ñu yeewi askan wi nag jamono ji maanaam ci seen show la ñu nekk enquête yéen a kaay nee na mbiri Barthélémy Dias am na daal yenn yoo xamante ni bëri na ci loola bëri na ay manipulation bëri na ay calcul bëri na ay menace yéen a kaay gi dalee seko nee na palais de justice tribunal jamono ji maanaam nag takk der yi fees nañu fa dal yéen a kaay gi di direct news xëy ci Malick Gakou ak noppi gi nga xam ne ga Gakou noppi na ko ndax nag dafa am liste yeewi askan wi boo xam ne maanaam nag dañu koo annulé daal maanaam ci Sam Notaire te gis nañu ne